Bonjour. <clears throat> Donc, je m'en vais entrer un peu en détail sur quelques points euh, d'analyse sur la situation épidémiologique euh, dans notre pays. Donc, comme l'a dit la santé, nous, avons, nous sommes à 735 cas positifs notifiés dans le pays, avec une, comme on le constate tous, hein, nous sommes dans une phase ascendante de notre épidémie, quelque chose qui est prévisible pour nous. Dans ces types de maladies à transmission respiratoire, la contamination étant très rapide, donc, à l'égard de, à l'instar des autres pays du monde, donc nous sommes dans cette phase ascendante que, et nous sommes en train de mener l'ensemble des stratégies pour essayer de limiter un peu cette, euh, cette contamination. Et ce qu'on peut dire déjà en termes de stratégie, euh, on, on, parle beaucoup de dépistage de masse. Et aujourd'hui, la stratégie du ministère de la Santé, euh, elle continue à, à l'être, à savoir un dépistage des personnes contacts, des personnes euh, autour des personnes qui sont positives. Et aujourd'hui, la question de la dépistage du dépistage de masse n'est pas encore à l'ordre du jour parce que tout simplement, il faut toute une stratégie, il faut des moyens spécifiques pour pouvoir faire un dépistage de masse. En sachant aussi qu'on ne peut pas parler de statut sérologique. Quand on connaît l'épidémiologie de cette maladie, vous, vous pouvez être malade pendant les 14 jours de votre période d'incubation. Si on, même si aujourd'hui on testait les 16 millions de Sénégalais, deux jours après, on peut avoir la moitié qui peut être positive. Donc aujourd'hui, la stratégie reste le dépistage donc, des personnes positives et des contacts qui sont autour de ces personnes. Maintenant, si après on arrive à avoir des, ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide, que si l'OMS valide ces tests, ces tests pourraient être utilisés parce que c'est des tests qui nous permettraient d'avoir un diagnostic très rapide parce que vous ne pouvez pas regrouper des patients, en tout cas des personnes supposées être malades, les tester dans un même endroit, les laisser partir chez eux et les reprendre après. Donc vous êtes obligé d'avoir des tests rapides qui vous permettent d'avoir le diagnostic très rapidement et si un malade est positif, de pouvoir le prendre en charge immédiatement. Donc aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en train d'être menées dans le sens de euh, d'avoir ces tests de diagnostic rapide. Il y a beaucoup de, de tests qui sont actuellement en cours d'analyse, même au niveau de nos laboratoires. Et si ces tests sont validés, ces tests pourront être utilisés et nous serviront pour faire une stratégie avancée autour des cas contacts et autour des zones qui sont touchées. Donc nous avons aujourd'hui 11 régions touchées. Donc on l'a annoncé, nous avons maintenant la région de Sédou. Euh, hier, c'était la région de Kaolak. Ça nous amène à poser la problématique toujours de la circulation des personnes, parce que sur, la, euh, sur le cas de Sédou, donc c'est une personne qui a eu à circuler après donc la fermeture, en tout cas l'interdiction de circulation entre les régions. Donc c'est une question fondamentale si on veut arriver à préserver certaines régions et si on veut arriver aussi à limiter les cas communautaires. Donc euh, je pense qu'il y a encore des efforts à faire sur le transport, en tout cas le déplacement des personnes d'une région à l'autre. Si on prend un peu sur le nombre de cas, nous avons un âge moyen de patients de 34,87%. C'est la moyenne d'âge de nos patients aujourd'hui. Donc, euh, nous avons une majorité de patients jeunes et ça, ceci peut expliquer un peu la majorité de cas simples. Sous les cas graves, depuis le départ, nous avons eu 14 euh, cas graves. Et sous les 14 cas graves, les 9 sont décédés, avec une moyenne d'âge de 69 ans. Donc, on l'avait dit, donc c'est une, tranche d'âge qui est vraiment à risque, les personnes de plus de 60 ans présentant des comorbidités. Et pour faire une analyse encore plus, euh, précise par rapport à la réanimation de FAN, c'est vrai que beaucoup pensent que tous les malades de la réa de FAN euh, Mais ce que je peux dire aujourd'hui, neuf patients sont passés dans la réanimation de FAN à Kouemo. Et parmi ces neuf, quatre sont décédés, effectivement. Trois sont sortis guéris. Nous avons un patient qui a été évacué et qui est décédé à l'extérieur et nous avons actuellement un patient qui est sous traitement. Les autres malades qui sont décédés sont décédés à Ziguinchor, Louga, Touba, Thiès, le cas de Thiès est assez particulier parce que c'est un décès communautaire. Nous appelons cela un décès communautaire, une personne qui décède dans la communauté, en dehors des structures de santé et qui est testée positive. Et il y a un malade qui est décédé au service de maladies infectieuses euh, de FAN. Donc nous avons aussi 30 districts sur 79 qui sont touchés actuellement. Et pour les dépistages, à ce jour, nous sommes à 11 032 tests de laboratoire faits et dans cette proportion, l'Institut a réalisé 10 354 tests et l'IRSF 678 tests. Euh, concernant, pour terminer, le personnel de santé, je pense qu'il y a beaucoup de communication autour du personnel de santé. Nous avons effectivement des personnels de santé qui ont été testés euh, positifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types. On a des personnels nous avons des personnels de santé qui sont dans la communauté, qui ont été contaminés dans la communauté, et des personnels de santé qui ont été contaminés dans l'exercice de leurs fonctions dans les structures hospitalières. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, dans, le, dans nos centres de traitement, où nous avons actuellement plus de 700 patients en, en soins, aucun personnel de santé n'est infecté. Et ça, c'est un indicateur extrêmement important parce que tout simplement, M. le ministre a donné des indications fermes pour que ces structures de santé soient dotées de tous les moyens de protection afin de protéger l'ensemble des personnels qui y sont. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucun personnel de santé, en tout cas infecté dans, à ce jour dans nos centres de traitement. donc Euh, am nañu fi mu nekk nii euh, fukk ak benn euh, gox région ci dëkk bi yoo xam ne am nañu gis nañ fa feebar bi ñu ngi woon ci juróom-ñeent bi ñu ci mujjee wax léegi Kaolack ak Sédhiou dugg nañ ci li muy indi rek mooy que ñu ngi constaté ni que nit yaa ngi dox nit yaa ngi jàll di jóge ci benn gox di dem ci beneen gox loolu pour ñun dafay continuer di indi problème et dafay tax aussi cas communautaire yi di gën a génn donc xalaat nañ ni war nañ ci gën a farlu. ba nga xam ne dinañ def ba nga xam ne nit yi du ñu continuer di dox di dem ci ci ci région yi bu ñu xoolee aussi kaa bi ñu amoon ci Vélingara am nañ ci benn euh, mbokk boo xam ne ci beneen dëkk la jóge jóge ci dëkk boobu dugg si si Sénégal bi ñu ko détecté mu am aussi euh, feebar bi donc loolu aussi lu am solo la ci wàllu contrôle bi nga xam ne moom la ñu war a def ci ci frontières yi ak ci biir dëkk bi ba nga xam ne nit yi du ñu continuer di di continuer di circuler ci wàllu euh, dépistage bi ñu bëri dañ naan il faut que ñu ñu xool Sénégalais yëpp nag am nañ feebar te loolu dañu ne même ci yeneen dëkk yi dafa nekk loo xam ne du mënul nekk parce que feebar bu ñu ko xamee suñu jëloon Sénégalais yëpp ñu defal leen taste bi bu ëllëg si ëllëg sa ñu am na ñoo xam ne mun nañ positif donc du loolu loo xam ne dafa nekk stratégie boo xam ne mun nañ ko adopté li ñu mën a def moom la ñuy def fi mu nekk nii mooy di xool ñëpp ñi nga xam ne am nañ feebar bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo leen di wër ñi ngi réfléchir nag ñi ngi xalaat ci beneen stratégie boo xam ne euh, ut ay yeneen jumtukaay yoo xam ne ñi ngi ci liggéey ci àdduna bi boo xam ne dina am diagnostic boo xam ne test bu gaaw boo xam ne ci euh, ñaar fukki minutes mun nga am résultat bi loolu moom bu ñu ko amee incha allah dinañ ko ut mun ko utiliser parce que dinañu may gox yi nga xam ne am na feebar bi dinañu mën a seet nit yu bari mais fu ñu toll nii ñu ngi continuer di utiliser stratégie bi nga xam ne moom la def bu ñu xoolee ni léegi euh, prélèvement yi bëri na. bëri mais li stratégie bi changé wul donc euh, dañu gëna agressif ci euh, ci ñi nga xamné ne ñoo am feebar bi ak ñi nga xamné ñoo leen di wara pour joxé rek ci ben ci ben estimation ci laboratoire bi am nañu presque fuk ak ben junni test ñu defagum boobu ba léegi donc lolu bari amna solo et fuk Institut Pasteur def na ko euh, juróom-benn téeméer yoo ISF mom moko def. ci wàllu malade yi ñu am aussi jàpp nañ ni euh, ñi si bëri dañu nekk xale parce que am nañu fanweeru fanweeri at ak ñeent mooy âge moyen bi ñu am ci ñi feebar ci wàllu ñi faatu nag am nañu juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent loolu kon waxoon nañ ko ni ko ñi nga xam ne feebar bi di gën a mën a daaneel mooy mag ñi donc euh, nañu bàyyi xel bu baax ci loolu et ci wàllu euh, prévention bi ñu doon wax takk masque yi sorianto bi raxas loxo yi dafa am solo donc war nañ ci jub bu baax suñu buggee vraiment protéger suñu suñu yaay yi suñu pap yi ak suñu maam yi ci aussi li ñu am yëpp ci cas am nañ ci fukk ak yoo mooy malade yoo xam ne seen euh, feebar bi dafa leen dafa leen daaneel lu bari ci loolu lañu am juróom-ñeent ñoo xam ne faatu nañ ci et bu ñu xoolee aussi ci malade yi nga xam ne ñu ngi ci réanimation bu Fann bi juróom-ñeent rek lañ ci amoon ci juróom ñeenti ñoo si faatu mais ñett wér nañu ba génn ci réanimation Fann bi donc pour wax nii rek am na ñoo xam ne dinañ dugg réanimation mais dinañ fa mën a génn aussi euh, ci kàttanu yàlla. et kenn koo xam ne moom mooy ki ñu delluwaatoon euh, tugal mu faatu foofu ak benn boo xam ne mi ngi actuellement sous traitement am nañ ci yaakaar bu baax ci moom. ñeneen ñi nga xam ne nag ñoo faatu am na koo xam ne ci biir Fann la la faatoo mais ci service de maladies infectieuses Louga am nañ ci Ziguinchor euh, Touba ak Thiès bu Thiès bi nag boobu moo xaw a euh, mun nañu wax doy waat tuuti parce que kooku ci biir këram la faatoo donc moom lañ naan décès communautaire. donc boobu dafa laaj aussi gëstu bu baax a baax parce que ñi koy war dafay bari trop donc équipe yi ñu ngi ci di si di si di si liggéey. ci walu fajkat yi parce que ñi ngi wax bu baax parce que fajkat yi aussi ñu su bari amna ño xamne amna ñu am bi ñi ngi am ñaar fuk ak juroom yo xamne ne ci tey euh, amna ñu feebar bi té buñu jappé jàppee fajkat yi dañu nekk ci dëkk yi dañu nekk ci communauté bi ba paré nekk ci ligéyu kay bi donc ci walu bobu amna ño xamne xam ne si seen liggéeyukaay la ñu am lañu lañu lañu amé infection am ño xamne ne si seen dëkk fi ñu dëkkee seen kër ak sen gox lañu amé amee bi wante li ci am solo mooy fi nga xam ne la fajee maladie comme gis nañu am nañ juróom ñaar euh, juróom-ñaar téeméer ak teg loo xam ne ñu ngi faj ci suñu hôpitaux yi ñi leen di faj kenn amu ci ci bi may wax ni ak léegi kenn amu ci jàngoro bi donc loolu lu am solo la mooy woon ni équipement yeeg protection yi nga xam ne personnel bi war na ko am loolu am na ko donc loolu ministre de la santé euh, monsieur Abdoulaye Diouf joxewoon na ndigal ba nga xam ne ci wàllu fi ñuy fajee maladie personnel bi dañ leen di protéger donc jàpp nañ ni ba léegi yàlla mi ngi si suturaal ba nga xam ne amuñu benn benn koo xam ne ci personnel de santé bi la nekk ci centre de traitement yi am na feebar boobu di jeexal rek di ñaaxaat nit yi ci euh, li ñu war a def parce que fi mu nekk ni wax nañ ko feebar bi pour taxawal ko du docteur yi feebar bi ñun la ñun ñi nekk ci dëkk bi ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp parce que si wàllu faj bi je pense que waa Kër Docteur ñu ngi def lu ñu mën mais ci wàllu wàllante bi ci wàllu tasaare feebar bi loolu ci nit yi la donc nañ ci bàyyi xel bu baax et jàpp ni comme li ñu waxee il faut que ñu ñu sàmm suñu yaay il faut ñuy sàmm suñu pap suñu pap yi il faut ñu sàmm suñu maam yi te loolu ñun am nañ ci responsabilité gis nañ ñi ñi gën a feebar ay ndaw lañu mais ñi ciy gën a ñi ciy gën a lor ay mag lañu donc dañu ci bàyyi xel bu baax topp ndigal yi sol masque yi masque yi dañ ko war a sol normalement masque kenn du ko teg si sikkim